saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa ndaje mbër ya ca seeka caate sunu làmb dellu si ci ni mu gën a yaatoo ñoom leen lutteur en activité ni ki keroog ca samedi ga la ñu daje foofee ca restaurant la woon mooy ouverture saison bi ba ñu mën a delluwaat ci seeni activité ñoom association des lutteurs en activité mboolem ñi nekk ci làmb kafatuñ ci reewatuñ ci làmb ji lañ ca bëgg te di ko ca sàkku mooy mu ubbi waati buntoom ba ñu dellu si waat ci seenub liggéey keroog ca seeka ca ca kuy VIP mboolem kuy mbër mu mag mboolem kuy mbër sax fekk nan la fa foofee kay képp kuy mbër teew nga fa ngir fekki ca ñaxtu ba képp ku naan mbër yi dañoo dof dakite yaa dof ba yëykaan yi keroog ca seen ndaje ma maturité tase ci restaurant VIP toog toogaayu VIP ñaxtu seenum ñaxtu te kenn déporté kenn waxul wax ju ñaaw kenn jëful jëf ju ñaaw lépp ñu teg ko ci yare ki teggin la leen fa dajale woon mooy ñu saafante jàllale seenum message te message boobee def nañ ko dans les règles de waral journal ba xëy bind les lutteurs bandi les muscles et interpelle ca interpellation yi nag lépp ci respect lañu ko teg ndax Bombardier ca mat ga ba mu jëlee parole dafa ne nous n'engageons pas un bras de fer avec l'État nekk ñu fi di xiiroo ko ngaayook état nekk ñu fi di jàmmaarloog ñoom nekk ñu fi di bras de fer ak ñoom ci ñaan njekk la ñu ci loolee la dox Balla Gaye dee ne ca ton ko làmb ji kay dañ ko war ubbi ñun ñu respecter les mesures barrières état mboolem lu mu bëgg ñu respecter ko danañ ko ko nu mu bëgg ñu mel bu soobee yàlla danañ ko mel ñun li ñuy sàkku ci moom mooy mu ubbi làmb absolument ouverte lamb ji dañ ko war a ubbi xale yu bari ji waaye seen président ba Gris Bordeaux ba mu jëlee parole la mu xam ne mooy l'état doit alléger les charges aux promoteurs état rawatina ministre des dafa war a wàññi charges yi wàcce ko ba mu wàcc bu promoteurs yi mën a gis seen bopp kàddu Gris Bordeaux yooyee nag dafa mel ni tàbbi wut ci noppi ku tax kàddu yooyee nag dafa mel ni le ministre Matar Ba da koo dégg moom xalaatam yépp ak yëngu-yëngoom yépp la réouverture de l'arène a tëgg ay lamb moom le ministre Matar Ba la mu njëkk a def mooy woolu la ñuy naka la def ba jàppale promoteurs yi ak fan lañ ko fas yéenee teg ndaje ministre des boobee ak CNG nag bañ fa jógee Bira Sène dafa convoqué promoteurs yi foofee ci arène nationale la ñu fas yéenee waxtaane mooy la réouverture de l'arène de lutte beneen ba mooy la compensation financière pour les promoteurs lamb ji daal danañ ko ubbi mbëri bëri ci ca huis waaye bu boobaa dañuy jàppale promoteurs yi financièrement loolee nag bokk na ci waxtaan 9 ak 6 milliards ñu fas yéene débloqué moom Jax promoteur ba xëy na ba tàllal loxom di laaj wàllu làmb 6 milliards yi ñu nar a débloqué moom Jax day laaj wàllu làmb la mu bëgg mooy làmb ñu jox ko ci wàll moom Jax 6 milliards yi muy sàkku ci état génne ko séddale na ko ba toog moom 6 milliards yooyu na mu ko fas yéene séddale buñ ko tegoon ci loxom moom Jax la mu xamle mooy 4 milliards la jox mbër ya 500 millions mu jox ko waa association des promoteurs de lutte avec frappe yeneen 500 millions yi mu jox ko waa association des promoteurs de lutte sans frappe 600 millions yi mu séddale ko écurie manager yeeg entraîneur yeeg association presse yeeg animateur yeeg ancien gloire yëpp mu séddale leen 150 millions 250 millions ya cay def ñu jébbal ko waa CNG loolee daal la xalaat ne buñ ko defoon jàmm ne ñooy làmb ji delluwaat fa mu nekkoon jërë ngeen jëf mbokk moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah